fédération bu am solo muy fédération maçon yi ñu yëkkati seen àddiye euh, pour li nga xam si ni moom mooy li lëmbee àdduna bi jaaxal àdduna bi yëpp ca Touba yàlla def mu jaaroon fi ñu nekk ci xeex bi di ko xeex ñoom ñu xalaat ne waruñ cee des ginnaaw il faut ñu ñëw jàpp ci xeex bi biñ dajalee seen doole xool lépp luy fagaru wala boog lépp luy xam na si ni boo ko jëlee yàlla mën na laa muccal ci feebar bi ñu dajale ko pare xalaat ne comme Touba ci kanam bi mbir mi jógee ba léegi yëndalutul fanaanalutul ndax jële fii li nga xam si mooy jàngoro ji kon ñoom dañ jël seen doole jox ko Touba ci kanam mu yeggale leen seen yéene ñu am nag ko xam si ne moom mooy seen responsable tudd ma seer xam naa di koy jox moom mu gën a expliquer dëgg-dëggi seen fédération bi lan moo ko tax a jóg ak euh, lan mooy mébétu bagage yi ñu dajale indil ko Touba ci kanam kon si ma seer bisimilah. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, ginnaaw bi nu sante yàlla euh, julli ci yonent bi di nuyu di siyaare mbooleem mbokk jullit mbokk taale bi ñu fekk fii suñu sëriñ ñu fekk fii ñoo leen nuyu di leen siyaare di ñaanal xalifa bu tedd bi sëriñ Muntaxa Ah, di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér ah, ñun nag dañoo nekk mouvement fédération travailleurs di batiment boo ko déggee nag mooy ñun ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci batiment li tàmbalee ci gaskat bi ba ci mëleur bi carreleur bi peintrekat plombier bi ñëpp rek képp ku yëngu ci batiment rek yaa ngi yaa ngi ci biir bàyyiwun kenn kenn kenn kenn ñun ñoo fédéré ñëw nii maanaam exemple ñun ñu toog nii rek bâtiment ñun ñoo ñoo toog tey loo bëgg ci bâtiment rek tey boo xoolee si ñun am na ko ko man tey ñoo ñoo nekk nii yàlla dogal nag ñu am euh, président président bi nag mi ngi Dakar euh, euh, fédération bi dafa yaatu ndax carte sénégal Sénégal yëpp fépp foo ne salaamaaleykum suñuy membre dana am ko la wax maaleykum salaam biñ déggee mbas mi nag mu nekk si àdduna bi yëpp ñun tam nag waruñoo toog di seetaan ñu ne kon dinañ euh, boole suñu suñu tuut ñun fédération travail du bâtiment xëy na nag doole ji bëriwut euh, waaye nag dañoo dafa yaatu ndax boo ne catastrophe fu ne suñuy membre ña nga fa euh, dafa xaw a bëri ñu dajalee suñu somme mi ngi tolloon ci cinq cent mille cinq cent trente mille yooyu nag dañ fenn fu nekk ci catastrophe yi rek comme ni ñu def Touba Dakar itam jot nañ seen wàll ba ñu ngi koy def di ko séddale comme ni ñu ko defee nii lool ah, loolu ginnaaw bi ñu ko xalaatee ci ndigalu président Daouda Sarr mu nekk xalaat boo xamante ni xalaat bu bu rafet la fii ci Touba nag man maa fi nekk ne coordonnateur lépp lu fi information lépp lu jëm ci loolu man maa fi jël ay kàddu leeral ko askan wi. ah bi ñu dajalee loolu itam ñu ne dañ ko indi Touba ñu ne ah Touba kat fi mu toll nii gisuñu fi beneen bunt bu gën a gaaw ci euh, defar pour euh, Touba ca kanam. ndax euh, guddeeg bëccëg suba suba ak ngoon loo gàtt gis-gis ak loo gàtt xalaat di nga dégg Touba ca kanam takk seen rajo nekk di wër jéem a sensibiliser doomu aadama yi ah, bu ñu fi amee lu mel noonu ñu koy joxe danañ dem ba ci euh, Touba si kanam ñu joxe ko fa te lu jiitu ñëw gi ñëw fii euh, le 7 décembre bee jàll ñëwoon nañ fi ñu euh, ñun waa fédération bi yëpp ñëwoon nañ fi Touba defoon fi benn ndaje ci kaw loolu amoon nañ ci ndigal ci xalifa bi ci sëñ Muntaxa ndax suñu benn yaay Fatmata Fall Camara lamp maam jaara ku ne xam na ko ci yoonu murid bi surtout ci Poroxaan solo noo dàllam ñëw ba ci sëñ Muntaxa Euh, wax ko ko ba sëñ Muntaxa joxoon ko ci ndigal moo taxoon ñu amoon ndigalu def ko fi Touba yàlla dogal na ñun ñii ñëpp àndoon nañ dem ba ci université bale ñu gis fa liggéey bu am solo boo xamante ni macha allah tey bu newoon liggéey bi ku fi ñëwoon dëkku ci Sénégal ñoo la liggéey bi euh, état defu ko du ko mën a gëm mu nekk liggéey bu am solo ñun tam bañ fa demee gis nañ fa façon liggéey yoo xamante ni li yëngu-yëngu ci bâtiment dolliwaat nañu xam-xam gin nañ faa amee xam-xam muy liggéey bu mucc ayib te doomu réew mi dong ñoom ñoo koy def muy muy muy am solo ñun ñun tam mënuñoo toog di deltu ginnaaw di gis liggéey bu mel noonu ñun nag ñu nekk ay ouvrier nekk ci Touba te ñun ñëpp dañuy tabax lii di yëngu ci ci bâtiment te li gën a am solo ci euh, ndaje mi mooy comme que Touba gis nga bâtiment yi des fois li li ci nekk ay conséquences bari na si léeg-léeg ñu yi daanu waat yu mel noonu euh, mu mel ne ouvrier surtout si Touba dafa nekk bay woo xam ne dafa amul bàjjan tey nag ñu bëgg ko wutal bàjjen mooy euh, fédération travail du bâtiment moo ñëw lëkkale lépp luy ouvrier ci tuubaa rek ñu jëm ko teg ci norme bi mu laaj lenn lu na la ca war rek ñu def ko ci. am na benn école formation bu nekk ci biir itam fédération travail di batiment nga xam ne tey bu yàlla dogalee nga dugg ci biir euh, fédération bi tam dañ la fay dugal ba nga am ay diplôme yoo xamante ni état nangu la nga xam ni foo ko tàllal dañ lay jël te loolu yëpp mi ngi ci fédération travail du bâtiment ñii ma àndal nii xam nañ ci euh, dara. ñun daal dañoo fas yéene ànd ak ci ci ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex euh, mbas mi nga xamante ni moo nekk fii ci Touba incha allahu rabbi euh, duñ ci deltu ginnaaw te bis ni ko tey itam bëgg nañoo fasante ak yéen coloré tege tege yi nga xam ne ñu ngi koy dagg ci liggéey Touba ci kanam euh, assistance travail de bâtiment fas yéene cee dugal loxoom moom itam ànd ak membre yi ak membres yi nga xamante ni ñoo ngi fépp ci Dakar chaque fin de mois incha allahu rabi ñu jël sunu ñaq dugal ko ci Touba Ca Kanam ndax instant bi gis nañ ne Touba Ca Kanam moo fi nekk te itam moo nekk loo xam ne lu mën a gën a yóbbu nit ca kanam la te amuñu lu amuñu lu du tuubaa wax dëgg yàlla macha allah Touba Ca Kanam bi mu fi ñëwee ak léegi gis nañ xar kanam gi mu def ci Touba kon dañuy ñaan yàlla rek lépp lu ngeen mëbët ci Touba rek saa borom teg ci loxo ba mu egg ca kaw a kaw a kaw a kaw jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Euh, fédération des travailleurs du bâtiment tubaa ci kanam mi ngi leen di nuyu di leen ziar di di leen sant di rafetlu seen jëf ju rafet yi ngeen xam ne def ngeen ko muy indil ñu ay paani raxasu indil ñu it ay satala indil ñu benn carton madaar ngir jàppale ñu ko ci mbas mi nga xam ne moo ne ci dëkk bi tañ ci yëngutu lu ñu rafetlu la lu ñuy sant la lu ñuy gërëm la ndax kat ci ni nga xamee ne noonu la boroom xam-xam yi waxe dañu ne li gën a gaaw ci mbas mi mooy fexe bay sat te yéen jaare ngeen ci cet ngir andil ñu ko jàppalee ñu ko ci liggéey bi nga xam ne tubaa ci kanam mi ngi ko doon liggéey socialement ci dëkk bi kon ñoo ngi leen di sant leen gërëm ginnaaw bu loolu jàllee nag euh, ñun ak yéen ñoo bokk dëkk bi mooy rek fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi jaarale ko ci ñi fi nekk ñëpp nag ak ci njàngaleem bu ngeen fi nekkee ñu ne fi ngeen ñëw ne kat nun suñu bunt ci dëkk bi lu ñu fiy def dañ koy jaarale ci Touba ci kanam ndax ñoom ñoo fi ne baat boobu nga wax baat boobu lu am solo la kon ñoo ngi leen ciy gërëm teyit it da ngeen noo sas ñoo fi ne jooju day tax ñu gën a góorgóorlu kon ñoo ngi leen di sant bu baax leen gërëm bu baax di wax ne incha allahu rabbi danañ yeggale jëf ji ci kilifa yëpp incha allah xam la ne fédération des travailleurs du bâtiment ñëw nañ fi. ànd ko délégation indi fi lii alhamdulilah nag bi ngeen fi fekkee le président de la commission sociale ndax da ngeen a dikk fekk ci ngeen excès dafa am solo pour quoi parce que da ngeen a dikk fekk waa sociale ab commission bi nga xam ne mooy yore ndimbal ak ndimbalante ci biir Touba ci kanam ñuy réunion ngir waajal ndimbalante boo xam ne moom la ñuy def ci koor gi at bu jot. sunu président mi ngi ñuy toog di sunu sëriñit ndax ñaar yëpp la boole président wu commission bi ba pare di sëtu sëriñ lu muy sëriñ Mourtada xam naa bu nu noppee dinañ ko tàllal loxo yi mu ñaanal ñu euh, ci barke sëriñ Bamba maamam ba li nga xam ne daal moom la Touba ci kanam bëgg ñu yegg fa ci kàttanu suñu borom kon nag li ngeen def jëf ji am na seede ndax fi ngeen ko ëndee dikk na fekk waa social ñu nekk ci action sociale ngeen def action sociale indi ko kon seen jëf seere seede am na ci bu wépp léegi nag euh, ñu ngi leen di xamal ne aussi seen seen waa fédération bi bari nañ ñu ci baree bari ñoo xam ne ñu ngi yëngut ci biir Touba ci kanam ci sunu sunu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey parce que xam ngeen dañuy tabax te li ñuy tabaxit it génne wuñ ko ci doomu Touba ndax bu ñuy def appel d'offre le secrétaire général li muy njëkk a def mooy day jël ci ñi nga xam ne andi nañ fi ñëpp li euh, ay ay demande d'agrément ñu yónnee leen appel d'offre léegi nag ku ñëw ba yegg si te yayoo ko ñu jaxlu ko waaye li ci ëpp lépp ay doomi Tuuba lañ kon yéen génnu leen ci ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm di wax rek